dialogue bu ñu bëggee déggoo Sud Quotidien ne Macky Sall kay dafa tàng jéeri ca ba muy àddu jëmale ci wàllum gouvernance mondiale coup d'état yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci déndu Afrique rawatina lu jëmit ci wàllum réchauffement climatique l'info ne ci tonet ne ko démb kay moom Macky sàll wax na ba mu mujj gi muy sànni ay doj ñi nga xam ne ñoo faree ci kujje gi kujje gi ak janoo bi ñu doon amal démb ca penc ndaw réew ma ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu bi réew mi maître Sidiki Kaba tàng jéer la def ci seenub diggante Vox Populi du ñu xamal ne Ayib Daffé Abbas ak jëwriñ ji Walf Quotidien ne maître Sidiki Kaba la bëggul nag mu organiser élection présidentielle yi lu jëm ci wotey njiitu réew mi l'observateur ma nga ñuy xamal ne nag ku jégi jamono ji aw yoon la ñuy wër yéenekaay bi ne fi mu nekk nii nag dañoo toog cib nen ndax amaguñu ab leader bu leen mën a teewal ci yooyee élection présidentielle ci jamono joojee nag nguurug Sénégal di leen tegal ay ndëgg sërëx yéenekaay bi ne ordonnance bi nga ñi lànk na kandaaxee nee na du ci laale tey du ci laale ëllëg ñetti million ak lu tegal ci wàllu parrainage le soleil xam ne ni moom la Amadou Ba am loolee nag la tribune xëy fësal ci xëtam bu njëkk ni ay kàcc la yéenekaay bi ne dañoo bëgg wax kon ne Amadou Ba moo gën a populaire Macky Sall waaye nañu bàyyi xelu askan wi ñuy fowee yoor yoor di ko feelu ne damaa xamul nag le soleil moom ana ku mu yàpp bay joxe chiffre yu nu toll ne moom la candidat bu bennoo bokk yaakaar am ci wàllu parrainage beneenub candidat bu nar a samp nëndëm moom nag le 24 heures xëyee ni ki tey jii kar may Meïssa Wade moom yéenekaay bi ne Karim Wade kay ma ngay def ay jéego ndax démb mandataire am bii di Abdoul Racine Kane déposé na fanweeri million ca caisse de dépôt et de consignation laas yéenekaay ne ko lii kay ab tontu la rek ci ñi nga xam ne dañuy laaj ndax Karim pare naam déeta soxal élection présidentielle yi wax ci leneen loo xam ne Sénégal am na ko mu di ndam loo xam ne dafa jëm ci wàllu transplantation rénale médecin chef bu l'hôpital militaire bu Wakaam di xamle ci biir yéenekaay bi de l'Observateur ne ci jamono ji fukki couple yu taxaw ngir xaar nag ñu daat leen koy defal yàlla tribune yëglekaay ne fi mu toll nii kay médecins yi taxaw nañu temm ngir mën a nag jàppale ñi nga xamante ne nii dañoo am jàngoroy rein wax ci wàllu tàggat yaram ak yéenekaay bii di stade ma ngay dellu si ci ndam li nga xam ne rek ñu ngi koy xaar ci PSG ak AC Milan mu jëm nag ci Ligue des champions juróomeelu bëccëg bi tey jii nag ñu fas yéene ci sëgg ci talaata ji Rewmi Sport dellu siwaat ci lu jëm ci CAF Awards 2023 mu ne Sénégal en finale bokk na ci catégorie meilleure équipe de l'année ci suñu lamb Ibou Diouf di mag ci Modou Lo ma ngay bi nga xam